Malang Fadera maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malang Fadera nga nekk euh, secrétaire général bu section communal bu parti démocratique euh, sénégalais bu Baguère responsable bu UJTL euh, déjà ma lay laaj naka nga gisee séparation bi nga xam ni moo am ci diggante coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Wallu Sénégal. bon loolu man awma ci commentaire awma ci commentaire parce que ñoom ñooy apprécier bon par rapport à la séparation de la coalition. non pour man. Mhm. amul séparation. amul séparation parce que euh, balaa ñoo laataa ñoo dem si élection euh, législative yi dañoo njëkkoon am débét pour àndoon si élection locale yi. Mhm. alors ñu dem ba jëmi jamono. diggante yi si waxtaan yi mujjee ñu am ay ponk yoo xamante ni jiboo nañ si ku nekk daal di demal boppam waaye biñ càmbaraatee après élection locale yi gisoon nañ ne xëy na suñu àndoon dinañ doon am plus de mairie plus de conseils municipaux ñu daal di ko rattrapé si élection législative waaye ba ñuy ànd itam mosuñoo wax ni que dañuy parti coalition bi day jël daal di seey si coalition bi loolu sax moo indi ñu naan intercoalition te ku ne xam na ni loolu terme bu bees si réew mi. Hmm. soo foo intercoalition ce qui veut dire ñaari coalition la te foo dégg coalition ce qui veut dire am na ay mouvement ak ay parti politique yu ko ŋànk. Hmm. donc ce qui veut dire fii ni da ngay jël ay mouvement ak parti politique yu ko ŋànk fi nga jël mouvement ak parti politique yu ko ŋànk bu su loolu moo waral da nga gis ce qu'on appelle euh, groupe parlementaire wàllu fii nga dégg groupe parlementaire yooyu PDS daa mës a respecté trajectoire mooy que ne ñun du ñu parti boo xamante ne day seey si parti jàmbur du ñun dañoo mës a gàddi suñuy couleur dañoo mës a gàddi suñuy principe ak nu mu mënti demee hmm. loolu moo waral tey nga gis ñaari ñaari ñaari groupe parlementaire yi mais gëmuma ni am na ay séparation pour man c'est pas une question de séparation mais lañu lañu la ñu tënkoon loolu rek lañ nekk di jëfe Euh, léegi Malang naka nga analyser clash bi am fi ñu toll ni Big Bang la de ci wàllum politique clash bi am ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz Ousmane Sonko li mu génn wax si wàllum dialogue bi ak euh, peut-être ba Barthélémy Diaz euh, peut-être président Sall bi dalaloon benn leader Yewwi Barthélémy Diaz génn confirmé mais indi ay leeral yu baree bari actuellement mu nekk clash patriote di attaqué Barthélémy Diaz ban commentaire nga siy def wala noo ko analyser waaye ñaar ñu doon ànd de xëy féewloo am seen diggante man awma lu ma si wax d'autant plus que ñoom ñoo doon ànd ñoo bokk coalition li ñu wootante mooy doomu ndey waaye li ma mën a ñëw mooy li nga xamante ne moo moo concerné Sénégal yëpp ndaxte si sorti ba bu njëkk ba bu Ousmane Sonko soo ko déggee am na ay révélation yu mu fa defoon donc Barthélemy Dias su ñëwee indi ay leeral ba xamal Sénégalais yi ni moom sax moo initié justement li nga xamante ne mooy mooy dialogue bi nii depuis le vingt six te ñaar rek ñoo Sénégal lu muy rëy rëy mooy Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall man foofu lenn moom fa intéressé lu moom fa intéressé mooy ku ne déggoon na si si ay jamono ca ginnaaw ñu tuumal euh, parti démocratique sénégalais ni moom mooy co-organisateur dialogue Barthélémy Dias ñëw nañu amul sax te nga xamante ne ko organisateur mais man maay initiateur dialogue bi man Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall ma ne leen bu fekkee da ngeen jàpp ne participer au dialogue mooy diil bu fekkee da ngeen jàpp ne co-organisation dialogue mooy diil mais am na mieux am na lu ko gën a garaaw fii nii nit ki na la du ma co-organisateur du ma sax participant mais man maa ko lancé man maa woote dialogue bi président de la république fekk si ma si te man man a kana si àndoon man la Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko kon bu fekkee loolu la ñuy woowee dealer kon sénégalais tey xam nañ ñoom ñooy dealer man loolu moom si intéressé man li ma si intéressé mooy damay sant Barthélémy di ko gërëm si ni mu setalee le parti démocratique sénégalais bi ñu doon wootee bi ñu doon woo ni que moom mooy co-organisateur. waaw kon yow yaa ngi rafetlu peut-être leeral yi aussi euh, rafetlu démarche bi Barthélemy def pour dialogue am est-ce que kon PDS tey jii ñoom pare nañ dem toog si table bi waxtaan. waaw mais xam ko xam euh, PDS si li nga ko xamee mooy parti de dialogue ndaxte it euh, nekkuma bu nit ñi fàtte ni ñun dara fukkul suñu bët gis nga xoqalaate bi tiitalaate bi teewul ni PDS daf koy respecté ñun suñu ligne de conduite kenn duñu ko dicté ñu yoon bu ñu jël kenn duñu ko joxoñ ñu ñooy toog en toute responsabilité apprécier li nga xamante ne moo gën si réew mi gën si suñu parti ñu daal di ko def ndaxte le parti démocratique Sénégal bu kenn fàttali dafa def vingt six ans d' opposition fii si réew mi te vingt six ans yooyu suñu leader yi suñu njiit suñu mentor ki nga xamante ne mooy suñu kilifa si politique dañ ko doon jàpp di tëj te teewu mais bi mu toogee aussi au pouvoir presque woote lu toll vingt cinq fois dialogue waa est ce que loolu tey bu fekkee PDS war a dem tontu ji dialogue du lu bees donc dialogue dafa bokk si suñu ADN dialogue dafa bokk ci loo xamante ne moo moo ŋànk moo moo moo moo suuxat le parti démocratique sénégalais xëy na nag balaa ñoo participer ci dialogue dañuy teg suñu condition dialogue day passé soo gisee participer wu ñu condition yi ñu tegoon la waa ji wàccoowul donc mm. tey jii ni dañoo teg ay conditions yoo xamante ne euh, waa ji pare na pour discuter ci moo tax lan la ñuy def lu dul wuyu li on a deux options soit ñu jël ay fetal rayante wala ñu toog waxtaanee ko bu fekkee ay guerre mondiale sax waxtaanee ko asmala tey jii nii Euh, li nga xamante ne réew mi nga xamante réewu jàmm la ñu ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi suñu wootee te nga gis ni que les gages de sincérité ñu ngi fi lan mooy tax ba doo dem wuyu ji te nag damay wax ni que gis nga nit ñi il faut ñu comprendre ñun lu ñu impressionné amu fi gis nga ndeykumba mhm. ku war ñëw ba wàcc. waaw loo warate dootu la saf. Mhm. ñun parti démocratique Sénégal dara fokkul suñu bët dara feesul suñu bët dara impressionné dañuy jël suñu responsabilité Euh, kon ba pare nag daa ma tegal la si ba pare ma ah. tegal la si dialogue boobu ñu wax ne que dañuy wuyu ji dañ see dolli ay ponk xam nga fichier électoral nii soo gisee élection bien passé présidentielle bi Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade ne leen bu leen dem dañ leen parce que fichier bi kenn yoroo ko ñu ne leen mais fichier bi nañ ko audité ñu ne leen nañ ci boole ponk yoo xamante fichier bii dañ koy auditer nañu waxtaanee ponk bii l'audit du fichier électoral ñun ñoo koy auditer ñu ne leen États-Unis ñu ne leen tey euh, euh, euh, Union européenne ñu ne leen ñu tegal leen si ak Union africaine ñu ne leen ñooñu ñëpp nañ leen jël ñu ñu def lañ lu ñu wooyee un fichier un l'audit du fichier contradictoire donc su ko defee lépp luy lënc lënc si fichier bi daanañ ko gis te su boobaa lënc lënc yooyu suñ ko dindee sénégalais li nga xamante mooy seen expression loolu mooy feeñ boobaa ki nga xamante ne moom lañ ko mu mooy nekk seen président de la république mais dem si élection yoo xamante ne fichier si benn visibilité loolu c'est de ñu ne la tegal si ne ñu tegal si ne ñu ko xale nga xamante ne ñu bind bi wala bu ñu leen def bind bi dafa gàtt nañ ñoo ko prolongé du la ñu tegal la si ne la loo xamante ne tey ay ay lënc lënc la président de la république bëgg see teg xamante ne yooyu yëpp ko waxtaan ñu teg. Malang Fadera si condition yi nga xam ni euh, moom la ñu teg pour ngeen d'accord dem dialogue gi xanaa condition yooyu la ñëw Karim Meïssa Wade def si bokk. déedéet ñëw Karim Wade ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee ci dialogue ba benn ponk rek dialogue ba soo xoolee ponk yi lu muy bëri bëri benn ponk rek moo se concerne le parti démocratique sénégalais mooy li nga xamante ne le président Macky Sall décidé na accepté na enfin pour respecter signature Sénégal bi nga xamante ne moom lañ defoon au niveau des Nations Unies ndaxte it bu leen fàtte ni soo jëlee suñu constitution ci préambule bi ak article quatre-vingt-dix-huit dañ ne saa yoo demee ba signé benn convention loolu day am une valeur supranationale sur nos lois maanaam mooy ëpp doole sax loi yi nga xamante ne mooy suñu loi suñu loi nationale donc su defee bu fekkee kooku dafa décider cette fois-ci pour wàccoo ak li nga xamante ne le groupe de travail des Nations Unies loolu la ko wax ñun mënuñu lu dul dem wuyu jëm mais ñëw Karim Wade ça n'a rien à loolu. lan mooy sa xalaat euh, ci verdictu procès bi nga xam ne euh, wàcc na euh, démb ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko six mois avec sursis deux cent millions yu mu war a fay ban jàngat nga ci am. aw ma si benn jàngat lu dul en tant que citoyen maa ngi observé ndaxte man ma du ma juge. donc man citoyen la lu si des mooy bu fekkee sur le plan politique daam ay appréciation yu ñu si def ñi nga xamante ne ñoo bokk Pastef ak seen i leader ñoom ñoo xool ban jàngat lañ si def ak ban suite lañ koy jox mais man personnellement xaw ma si benn jàngat franchement. mais ñu bëri dañuy ragal niñ galgalee woon Karim ba bokkul galgal ko Khalifa Sall euh, loolu la ñuy galee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko loolu tamit amoo si xalaat. te ngeen waaw déjà dossier dossier aussi bokkul xam nga dossier aussi bokkul parce que Karim Wade ku ne xam na ne nañ ko jàppee. déjà jaratul ñu si ñëwaat Khalifa Ababacar Sall aussi nu demee jaratul ñu si mais bu fekkee ñoom dañoo apprécier ba jàpp ne lañ defoon ak defoon ko Khalifa Sall foofu lañ bëgg jaar ñoom euh, bu fekkee euh, noonu lañ ko gisee nañ xool naka la organiser woo pour xeex loolu mais man awma si benn commentaire mais lu ma xam daal mooy man du ma magistrat du mm. citoyen la donc maa suivre sama sama état de lu ma d' dina taxaw mm. a won àddina ni ñii nii nañu daanee Karim Wade teguñu ko fenn teguñu ko si yoon lu rek mooy écarter un adversaire politique de taille donc bu fekkee ñoom loolu lañ gis lu ma leen di conseil pas conseil sax mais la ma yaakaar mooy ñun fu ñu jaaroon ak état du Sénégal kon nañ fa jaar ak état du Sénégal xëy na yàlla may leen léegi euh, Sonko moom nee en tant justiciable dootul wuy ji justice loolu am nga si xalaat quand mm-hmm. waaw man man lu euh, euh, la loi ok man daf je suis du parti démocratique sénégalais ñun dañoo gëm institution ñun dañoo gëm loi gis nga Karim Meïssa Wade bañ koy convoqué nekkul woon Sénégal. Mm-hmm. xam nga yomb rek mooy mu toogoon fee ne ne ñëw mais dafa dagg bi ñëw te xamoon lépp lu ko doon xaar xamoon dañ koy sànq. waaye dafa dagg biir ñoo wuyu si kon bu fekkee man parti boobu laa bokk bu fekkee man sama leader noonu lay doxalee man su ma gisee keneen kuy doxalee nu safaanook loolu man loolu mënu ma ko apprécier waaye bu fekkee ñoom dañoo jàpp ne dootuñu wuyu dootuñu wuyu état du Sénégal dootuñu wuyu suñu justice dootuñu collaborer bon dañ jël seen responsabilité et puis suñu amee moyens yoo xamante ne ko résister aussi on mais man lu ma gëm moo citoyen boo gis ak lu mu metti metti da nga war a dem fu mbaxana doon benn bu fekkee dañ la fa woo man loolu laa nekk na nga apprécier xool nu ngay doxali euh, dernière question Malang Fadera di dictature digitale bi nga xam ne moo am si internet bi euh, saaga yi ak euh, boo waxee loo xam ne ànd ak ñu désabonné wu saaga la comme rek récemment niñ koy doxalee ak Barthélémy Diaz yàgg ko doxalee ak ñu bëri loo si xalaat gis ñun ñun ñu di PDS nous avons la leçon à recevoir de personne kenn du ñu dicté lu ñu wax kenn du ñu joxoon fu ñu jaar kenn du ñu wax nu ñu xalaatee kenn du ñu tegal ay erreur ñun ñooy toog en toute responsabilité apprécier lu ñuy def xool nañ koy doxalee doxalee ko te nañ ko war a doxalee. donc bu fekkee ñoom ah, jàpp nañ ne dictature boobu noonu mën nañ ko imposer nit ñi ba duñu wax seen xalaat bu fekkee dañoo jàpp ne dictature boobu noonu mën nañ ko imposer ñi ñi ba ñoom fu ñu joxoon léegi ñu daal di daw topp leen su boobaa gis nañ ni ñu ngi nax seen bopp ndaxte sañ ko essayer ak le parti démocratique Sénégal dañuy gis ko du jàll. réew mi ñoom ëpp ñu ñu fi ñun réew mii nii kuy opposition xam na ne parti démocratique sénégalais moo la ëpp ci réew mi xëy na nag lu utale ñi ñi mooy dañoo amul les mêmes comportements ndaxte un militant du PDS foo ko gis mu ngi ànd ak dal mu ngi ànd ak tey mu ngi ànd ak yaru du wax ju ñaaw doo ko ci xaar doo ko ci xaar xamul ko waral parce que ñun dañuy former au niveau de notre parti te je pense que loolu occasion la pour ma lancer ko l'ensemble des partis politiques du Sénégal pour que ñuy tàggat seeni militants comme le PDS ni muy tàggate ay militants gis un militant du PDS su toogoon tey soo jëloon ay ay ndaw ay ndaw ñu jóge ci parti bu ne nga teg leen ci plateau ku nekk su waxee rek léegi nga seppi ci ki nga xamante ne moo jóge la parti démocratique sénégalais lu ko waral mooy tàggat bi ñu leen tàggat ci yar ci teggin ci waxin daf ñu dafay ute ak ñeneen ñi te je pense que bu fekkee da nga am ay militants yoo xam tàggatoo leen loolu mooy da nga jël ay da jël ay kii rek teg leen naan leen tiiree leen nu mu leen neexee mais nag bu fekkee aussi yow mii di leader joxe woo exemple boo xamante ne nit ñi mën nañoo rey si yow su boobaa aussi day jafe loolu pour nga mën leen tegaat si yoon waaye daal loo su mën a dégg mooy dictature bu intellectuel boobu ñu bëgg imposer nit ñi keneen moo koy sédde moo keneen moo si dellu ginnaaw waaye du parti démocratique sénégalais amul mbindee fii si réew mi mën ngaa yow fexe fexe si wàllum politique ba ñun suñu xalaat dañ ko wax fii amul mbindee fii si réew mi boo xamante ne impressionné ñu ñun impressionné nañu yàgg Abdoulaye Wade moo ñu impressionné Karim Meïssa Wade moo ñu impressionné hmm. amul keneen keneen fii koo xamante ne kuy kuy politique leader politique koo xamante ne mën nga ñu impressionné amul keneen keneen koo xamante ne mën nga fay teg armée boo xamante ne armée d'insulteur la ba ñun suñu trajectoire politique ñu teggi ko donc ndéykuma loo si mën a dégg mooy ñun en toute responsabilité dañuy assumer nga xamante ne dañ koy def merci beaucoup Malang Fadera maa ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay sant di la gërëm. voilà may fàttali ni Malang Fadera secrétaire général nga bu section communale bu parti démocratique euh, sénégalais bu Baguère nekk responsable ca UGTEL ñu ngi koy remercier bu baax a baax. remercier bu baax a baax.